partager le maximum possible rek ba ñëpp mën si jot dina am solo lool son bi normalement le son est bon normalement il n'y a aucun problème peut-être ça 4 de mon rek mais le son en principe bon, il n'y a aucun problème Vous pouvez me partager avec deux minutes au maximum ñu dugg contenu live et comme je l'ai dit Inch'Allah, nous allons parler de l'essentiel Vous pouvez ba bëree 30 minutes waaye dinañ ko tank vous avez toutes les bonnes informations Inch'Allah merci beaucoup

moy liñu xamé won manam communication bo xamante da fay wékku ci échange direct entre ñun ak yéen ci li nga xamante mom moy projet biñ mësa défendre lorsque nous étions dans l'opposition bi nekkee ci opposition bi te projet bobu à travers la communication à travers ñi nga xamante ñoko ngank ko ŋànk ka nekk ca bopp di président Ousmane Sonko ñu fal ki nga xamante mom moy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñuy poser ay acte ak ay action yoo xamante ne dafay jaadu ñu vulgariser ko amplifier ko ba ñëpp jot ci ñëpp xam lan moo xew souvent mbir itam dina am lu ñuy tuddee des contre-attaques contre-attaques moy mooy ñi nga xam ne ñoo de l'autre côté dinañ fexé djema yaq djema wax djema sos loolu la mujjee kon fi ñuy njëkkee tey ci lii nga xam ne moom mooy suñu live bi mooy ñëw ci choix yi nga xam ne gouvernement bi te ka nekk ca booba di le premier ministre Ousmane Sonko jël na ko muy ay décision yoo xamante ne ngir dimbali askan wi la muy décision yoo xam ne nag ka ka taaw ka nekk ca booba ka am gis-gis ba bañ na nañ jël décision yu décision yooyu mooy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ci kaw loolu mu am ay décision yoo xam ne jël nañ ko ba nekk ca bopp ya bopp ba mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen nañuy Sénégal seetaan dem leen laaj ñi nga xam ne ñooy waa Touba daan ngeen ko dégg ñu ko daan joytu naan amuñu ndox wala sax amuñu ndox mu neex bi nga xam ne jot nañ ci nguur géeg tey jii nga xam ne matagul ñaari weer weer la ak lu sof as fexe nañu à travers ministre bi nga xamante ne moom moo yor lépp ci jëm ci wàllum hydraulique wàllum ndox di Cheikh Tidiane Dièye ba waa Touba am ndox en tout cas mi ngi amélioré bu baax a baax a baax a baax a baax a baax loolu nag li ko jur mooy yitte boo xamante ne nguur gu bees gi régime bii nga xamante ne la nekk ca bopp ba nga xam ne mooy référentiel bi ñu sukkandiku ngir jëmale réew mi ci kanam ñu tuddee ko projet bi moom moo ko xalaat jëfe ko gannaaw ba nga xamante ne président de la république ànd na ci ki nga xam ne moom mooy le euh, premier ministre Bassirou Diomaye euh, Ousmane Sonko mu ànd ci ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye loolu mbir la moo xamante ne commencé nañ koo liggéey te noonu lay continuer ci jàmm kon bu ngeen laajee waa Touba ci action yoo xamante ne posé nañ ko ña doon ñàkk ndox te ci régime bi fi jóge de 2012 à 2024 dañ doon wax saa su nekkat dañuy am problème ndox du ñu ne problème yi jeex na à 100 pour cent parce que dañuy jox a jot ci doog a jot ci nguur gi waaye dinañ fexe ba lañu sàmmonte woon ci ay kàddu ba fii ak ñaari at au maximum comme ni ko premier ministre Ousmane Sonko waxee. sénégalais yekne changement yu bari commencé na am ci sen dundin te lolu bokku na ci décision yi nga jot a nga xamné mom moy ci walum mi Touba soxla ko bu ngeen ko dinañ ko wax kat wax commencé à action la bo japp na né baxna nit ñi parce que gis ngeen ndox xëy na ñu ko am sax xamuñu peut-être importance bi di ko gis saa ne waaye balaa ngaa xam njariñal loolu nga ñàkk ko te soxla ko ngay xam njariñ li lool moo tax ku ko xeeb xamoo li xew te kat waa Touba ak Touba na mu toll dëkk bu rëy la ak dëkk bam ni mu toll bu demee tey ba nga xam ne seenu ñàkkum ndox wala jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi ko doon am ci ndox mu ngi wàññeeku yaakaar naa ne kat jëfin la. acte la yoo xamante ne posé nañu ko yoo xam ne kat war nañ koo rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax te loolu acte la yoo xamante ne gouvernement bi jël na ko muy loo xam ne des koy rafetlu bu baax beneen bi muy li nga xam ne moo jëm ci wàllum suuf mbokk yi man Thiès laa dëkk li may wax dama ko xam xool laaj leen Dakar ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci wàllu corniche bi wala walu lepp lo xamantene mo moo jege gi wala bok ngeen laaj ñi nga xamantene ñi ngi ci zone yi nga xamantene ne enjeu foncier dafa nek walum suuf mbokk yi ñi diñu di ak man mi ñun ndaw ñi est-ce que dinañ am fuñu ñu dëkk est-ce que dinañ am possibilité am terrain yu bax yu taxaw yo xamantene kat c'est bien placé ñu won fa dëkk lu tax ñuy poser question bobu moy gëm naane dinañ ko am li tax ñu koy am moy nguur gu bes gi fi ñëw dafa décider ne kat injustice. foncière yi nga xamante ne doon def am ci wàllum suuf bay jël suuf si di ko séddale ci ñenn ñoo xamante ne kat ay way politique lañu wala way homme d'affaires yoo xamante ne jóge nañ nguuru Macky Sall woon loolu yëpp dañ koy jël nanguwaat ko tegaat ko ci yoon suspendre ko attribué ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yelloo ba askan wi ñu nekk ci suuf nga xamante ne ñoom ñoo soxla tey ay dëkkuwaay ñoom ñoo soxla ay kër ñoom ñu mën a am ay terrain yoo xamante ne ko ñoo fa dëkkee ñoo ko moomee dama leen ci jox exemple mbokk yi. ku ci nekk ci ku may seetaan ku dëkk Touba wala ku dëkk Dakar wala ku dëkk Thiès wala ku dëkk Pout wala ku dëkk foo xamante ne par exemple dinaa koy dégg souvent côté Tivaouane kër kër kër euh, Ndiayeloo yooyu ak surtout côté Dakar dañuy faral di dégg ñu bëri di wax ne kat seen problème mu suuf problème mu suuf gis ngeen mbokk yi boo dëkkee ci benn commune nga dëkke fa yow nga bëgg foo dëkk terrain boo xamante nga war a dëkk yoon may na la nga bind maire bi ne man dama bëgg kat. ngeen jox ma ci assiette foncière bi nga xamante ne commune bee ko moom espace boo xamante ne mën naa koo dëkkee man ak sama njaboot suturloo ko normalement bu ñuy attribuer dañ la ko war a mën a jox waaye yéen est-ce que xam ngeen na loolu daanaka amatul ci réew mi pour ñu attribuer askan wi suuf ba ñoom ñu mën saa su ne buñ ko soxlaa kat am suuf wala boog suuf si sax ñu jaayee ko noo xamante ne kat prix ba du cher ku ci nekk mën caa jot am foo dëkkee loolu sax amatul. lu am mooy dañuy jël cinq hectares di hectares maanaam lu toll ci téeméeri terrain ñu jël ko jox ko kenn nit mu dogot dogotee ko jox ko ay militant am wala mu jël ko jaay ko jël ko def ko ci xaar poosam loolu mooy li fi amoon ci nguurug Macky Sall loolu yéen ñëpp bi ngeen ñëwee gis ngeen ne kat li njëkk a jël décision yi njëkk a jël mooy suspendre lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum séddoo suuf gi fi amoon tabax yi nga xamante ne teguwul ci yoon ñuy profité ñu ne hey lépp na dakk Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël décision boobu ànd ceeg ki nga xamante ne moom mooy premier ministre am di Ousmane Sonko loolu am na fi ngeen gis la xew ca Thiès ca Mbourkat ñun ñépp a ko gisandoo am ñoo xamante ne demoon nañ ba am deux cent hectares loolu yëpp ñu leen day dakk tas nañu ko kon yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkkee ci zone yooyu nguur gi dina def enquête am defaraat ko te commission boo xamante ne man mii dëkk cees xëy na sax dañ naan sari top xam nañ ko waaye ki nga xam ne xamuñu ko sénégalais lambda bi nga xamante ne Thiès la dëkk moom amul tur kenn xamu ko moom mu mën a dem inscrire ñu jox ko terrain boo xamante ne danaan moom moo ko moom Ibra Diop wala Njaga Njaay kum ci mënti doon ñu ne terrain wam la moo ko moom parce que Thiès la dëkk dafa ko bindu ñu attribué ko mun faa dëkk moom ak njabootam loolu mooy yoon te loolu mooy li nga xamante ne moom la nguur gii bëgg a def yaakaar naa ne yii. mooy justice sociale bi nga xamante ne biñ ñëwee léegi commencé nañ cee taxaw pour loolu mën a am te loolu mbir la moo xamante ne dañoo bëgg mu jëm kanam bu ngeen xoolee li jëm ci wàllu corniche bi ngeen jëm xool ci lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllu VDN bi ak bi ku lu jógee géej gi biir Ndakaaru mais ay immeuble ngeen gis ñuy jóg rek kan moo leen ko jox lan moo tax ñu jox leen ko yan condition lañ ko joxee ak ñan lañ ko jox du ngeen mu gis mukk kuñ naan kat kilifa la ci opposition bi ñu jox ko ko déedéet. parce que ñi ñu koy jox souvent wàllu politique la yoon la mbir moo xamante ne tegul ci yoon wala boog ñu jox ko ñoo xamante ne dañuy xañ askan woowee ñu am accès ci corniche bi te mbokk yi bu ngeen de tukki tuuti di xool dëkk yi nga xamante ne dañoo am corniche dañoo am maanaam géej bu jàkkaarloog ñoom mu tudd corniche ñu dëkkee fa dañ koy defee noo xamante ne askan wa dañ fay mën a dem féexlu doxantu profitoo ca ñun nag suñu corniche li ñu am ci géej gi yépp ci côté woowee dañ koo jël jox ko ay nit ñu tabax fa ay li nga xamante ne mooy ay immeuble yu mag a ba askan wi amuñu ci accès mënuñu faa dem loolu mbir la moo xamante ne biñ ñëwee léegi dañoo nekkat décision yu ñu jël dañ koy xeex ñu ba lu ñëpp bokk ñëpp jot si waaye duñu jël lu ñëpp bokk ñu jël ko jox ko ñenn képp kese dong loolu daf fi jeex bokk na ci décision yi nga xamante ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko ànd ci ak ki nga xam ne moom mooy premier ministre am di la di di di Ousmane Sonko buñ jógee foofu mbokk yi muy décision yu am solo yoo xamante ne jëlef na ko waa léegi kon ci wàllum suuf ñoo ngi koy jéem a régler ba yéen askan wi ku ci nekk nga mën a jot ci suuf waaye wàllum ndox wax naa ko ba jox leen exemple ci Touba te tuubaa dëkk bu mag la boo jógee ci loolu waaye mbokk yi gis ngeen rapport yi nga xamante ne génn na cour de comptes génnee na rapport yu dul jeex gis ngeen suñu réew mi dinaa am loo xam ne dinaa si ñëw parce que yàlla mi ma tiim xam na ne parfois man bu politique passé dama naan est-ce que yenn presse yii wala ñenn ñi nga xamante ne ñooy toog ci presse bi di wax bëgg nañu réew mi waxuma la bañ ñu ñu ñuy xeex de lo sama dekkatu sama problème mooy ñii est-ce que bëgg nañu réew mi est-ce que bëgg nañu askanu réew mi est-ce que bëgg nañu réew mi jëm kanam est-ce que bëgg nañ réew mu ci est-ce que bëgg nañ askanu Sénégal ñu am ñu ñoo ne ñu woom lañuy doon am lu ñu def poste baax ndax yow gis décision yu baax yoo xam dafa baax ci askan wi ñu jël ko parce que da ngaa contre nit parce que da ngay xeex nit nga dem di waxal lu dul wala di wax ci leneen amul sens ci mu ci alors que y a des décisions plus importantes yoo xam jël nañ ko applaudir xalaat ci pousser xalaat bi ba nga xamante ne nit ñi kat dinañ ne lii lañ mooy li nga xamante ne ci lañ war a sukkandiku ngir réew mi jëm kanam waaye da ngay gis ñoo xamante ne ñii da ngay xam ne ñii bëgguñu réew mi da ngay xam ne ñii sax ñu bañ réew mi la ñuy wax ndax parce que am na décision yoo xamante ne bu ko ab nguur jëlee nga war a applaudir war ko rafet lu nga nekk ca leneen di ko ignorer c'est parce que yow bëggu réew ma dinaa leen ci jox ay exemple yéen ñii di seetaan ku ci nekk ci yéen wala sax yéen ñi nga xamante ne sax peut-être bëggu mais ñoo ngi fàttaliku mbirum Covid 19 sénégalais yëpp dajale woon seen alal xalif général des Mourides à l'époque su ma juumulee la mu génnee woon est-ce que ëppul 200 millions. ñeneen dugal ñeneen dugal ñeneen dugal entreprise yëpp dugal ñu ne xaalis bii nañ ko jël sàmm ko ba askan wi ñoom kat ñi nga xamante ne feebar bii du coronavirus ñu mën cee mucc ñu sàmm leen aar leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ñu mën a faju est-ce que li ñu luubal daat koy détourner. ci xaalis bañ naan jege na mille milliards waa loolu bu demoon ci askan wi am na koo xam ne xëy na ñàkk na papaam am na koo xamante ne xëy na ñàkk na ci mbokkam xëy na xëy na laa wax xëy na doonu ko ñàkk bu doon tegu na ci yoon tey loolu nag ñu ne dañ koy jël teg ko ci yoon yoon topp ko ka koy def mooy ka koy nga xamante ne moom moo yor politique judiciaire euh, président Bassirou Diomaye jakaar fay di le ministre nga xamante ñëpp xam nañ ak njubam di Ousmane Diagne di le magistrat Ousmane Diagne mu ne dina ko topp ñu jëm ko ci wàllu yoon yoon ate mu am séparation des pouvoirs mooy li nga xamante ne man nekkul ne man Sadio Top mii rek dañ naan dafa jege Ousmane sonk wala kat dafa jege Pastef rek ba damay xëy tooñ waa kër Macky Sall su ma ko defee dañ ma war a duma teg ma ci yoon loolu mooy dëgg awma droit di tooñ kenn képp koo nekk sénégalais rek ñun ñëpp ñu tolloo ci yoon ñun ñëpp ñu tolloo ci li nga xamante ne moom mooy justice jaay doole jeex fi yoon tegu fi alal ji ñu teg ko ci yoon ñun loolu la ñu bëgg ci réew mi man mii bis bu ma tooñee ñu yóbbu ma ci yoon yoon teg ci mbir mi teg ma ci yoon su ma jëlee alalu réew mi ñu yóbbu ci yoon yoon teg ma ci yoon loolu mooy dëkk te loolu la ñu bëgg moo tax bi ngeen gisee Bassirou Diomaye fay ñëw ñu jël rapport yi nga xamante ne ñoo nekkoon Cour des comptes Bassirou le président Bassirou Diomaye Faye ñëw ne nañu génnee rapport yi en l'espace de deux semaines ñu am près de quatre mais rapport of nag génnee ay rapport am mbokk yi loolu ngeen xam ne kon rapport yi nekkoon na fi waaye njubadik ñi fi nekkoon ak ka nekkoon ca bopp ba moo waral rapport yooyu askan wi mënuñ ci woon jot te suñu alal la nag ñun ñoo ko doon jël dajale ko jox leen ko ñun ñoo ko doon jël dajale ko kat dañ la kat yow mii kat yow yaay président de la république xool leen naka la ñuy defee ba ñun askan wi kat ngeen woomal suñu dundin ñu jël alal jooju détourné ko def ko seen poche rapport am. danna kat li la rapport yi wax nee diw mi fam duggal xaliss ba waru ko fo won duggal diw mi luubal na xaliss na wara dem ci yoon nga jël lepp denc ne mako ko del sama ne bu ko pour askan wi bañ ko gis ngir ciow baña am lol la fi Macky def president bassir Diomaye fay ñew genné rapport yépp na na leer nañ yu ci war a dem justice dem ci justice justice atte mu am séparation des pouvoirs mbokk yi nekkul woon est-ce que nekkul woon lii lañ waroon a waxtaane ngir askan wi mën a xam alalam fan la dugg lépp war a mën a woom waaye defuñu ko ci leneen la ñu nekk te dinaa ci ñëw bokk na ci yi nga xamante ne itam dañ ko war a waxtaane beneen bi mooy lu jëm ci lu am am njariñ wax naa leen ko léegi gis ngeen mbokk yi bi ñu egseeg léegi muy régime euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi ñu jotee ci nguur geeg léegi dafa am décision yu am solo yoo xamante ne jël nañ ko ci te dinaa ci ñëw ci beneen boo xamante ne jar na ñëpp xam ko ndaxte am réew da ngay xam ne muy doxee boo demee États-Unis wala nga dem France wala nga dem ci dëkk yi nga xamante ne dañ naan dëkk yu développé lañu koo ci gis muy lekk lu seen réew bay rek c'est parce que dëkk yooya ñoo ngay bay waaye c'est parce nguur ga am na politique d'autosuffisance alimentaire boo xamante ne moo tax dëkk yooyu dem ba mën a ñoom li ñuy lekk kat duñu ko jéggaane ñoom ñoo koy bayal seen bopp ngeen déggoon ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ak projet bi nga xamante ne moom lañ tënk ñu daan wax naan autosuffisance alimentaire ñun waruñoo jéggaane lu ñuy lekk dañ ci war a liggéey bi ñu ñëwee jot ci réew mi ñu jàpp ne yéen askan bi ñun ñii dañoo war a fexe ba suñu lekk yomb ngir mu yomb nag lenn moo ñu koy tax mu yomb mooy ñun ñu koy bayal suñu bopp parce que bu ñu ko jéggaani jee buy dugg si ci réew mi dangay fay transport ba da ngay fay taxi ya bu dugg see ki nga xamante ne moo ko fi indi commerçant la day ut lu mu ca teg bu utee lum ca teg nag prix ba gën a yéeg te ñun bu dee suñu koom bariwul suñu am am bariwul mbir mi cher ci ñun ñu ne loolu yëpp nag dafa war a wàcc li tax muy wàcc mooy ñu mën a am mbay moo xamante ne askan wi dinañ mën a gëm ne bay day développé am réew ba bu boobaa ñun dinañ mëna am sax li nga xamantene moy autosuffisance alimentaire mu nek lo xamantene objectif la bu ñu war jëme ci lolu nak ki nga xamne moy premier ministre Ousmane Sonko bimu ñëwé ci ndigalal ki nga xamne mom moy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu amal ab conseil interministériel waxtana ko wajal li nga xamantene mom moy hivernal bi wajal li nga xamantene moy nawet ba ñu jëm ci waj gogu ñuy wajal nawet bi mu am ay décision yu am am solo yo xamantene jël nañ ko ci bokku na ci le 3 mois le 3 mai 2024 conseil interministériel bi nga xamante ne am na ci waajal li nga xam ne mooy campagne agricole dafa am loo xamante ne moo fi daan am maanaam campagne agricole bi nga xamante ne li ñu programmé woon pour campagne agricole ren bi cent milliards la pour waajal ko ñun bi ñu ñëwee Bassirou Diomaye Faye gannaaw ba mu waxtaanee ak ay ñoñam daan ni dañ koy yóbbu cent vingt milliards ñu yokk ci vingt milliards yoo xamante ne nee nañu dañ ci dañ ciy ànd ak ñi nga xamante ñoom ñooy baykat yi ngir waajal li nga xamante ne moom mooy campagne agricole bi ba bu mbay mi baaxee dëgg baykat yi mën cee gis seen bopp ñu yokk ci vingt kon cent milliards la woon yokk nañ ci vingt muy lépp li nga xamante ne moo jëm ci waajal li nga xamante ne moom mooy nawet bi ngir baykat yi mën a bay bay bu yéwén waaye daa am leneen lu ci xaw mbokk yi mooy ren gii nii décision yi nga xamantene jël nañ ko nee len suñu alal yi dañ ko jël luubal ko sànq maa len ko koy waye amna lu xew baykat yi dinañ ko ñom dinañ ko wax parce que ñun dinañ len jox occasion ñom ñu mëna wax exprimer wu wax sen mbégte wala sen nakar bu dé amna ci de 2021 2022 ba 2023 nguur gi dalé na yoro len ay bor ta fayu len ko mu tollu ci 41 milliards ñom ñu ci daw ci nguur Macky Sall la won 2021 2022 2023 bi nga xamante ne ñëw nañu président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre am ak ki nga xamante ne moom mooy ministre bi nga xam ne moo yor wàllu mbay lan la ñu def dañoo jël bor boobu ne des koy fay éponger ko ba mu set wecc ba baykat yépp bor yu ñu leen yoreloon ñu fay ko képp koo xamante ne tey jii nii nguur gi yoreloon na la bor tey jii nii ñi ngi la koy fay fay bi nag mënoo xëy rek na tay lay doon dañ koy étalonné moo tax jàpp naa ne am na lu ñu jot a fay semaine bii dinañ fay le reste bu dee def fayeguñ ko muy 40 milliards yoo xamante ne ñoo ngi koy fay baykat yi waa mbokk yi lii amul njariñ ci boobu jamono yéen ngi doon dégg ñoo xamante ne nañ détourné nañ quatre euh, quatre vingt quatorze milliards dégg ngeen fi ñu naan fonds Covid 19 mille milliards détourné nañ ko dégg ngeen ñu naan vingt neuf milliards Prodac te boobu jamono ñi nga xamat ñoom ñooy baykat gi nguur gi ma nga leen yoreloon quarante et un milliards de deux mille vingt et un deux mille vingt deux ba deux mille trois ñun ñu ñëw deux mille vingt quatre fay leen bor boobu yépp nguur ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec ki nga xamante ne mooy premier ministre am di Ousmane Sonko loolu def nañ ko fi waaye lan moo tax waxtaane wuñ ko buñ naan na ñërëm baykat yi. bu ñu naan baykat yi nañ leen jàppale bu ñu naan baykat yi est-ce que ngi leen di bàyyi xel naka lañ leen di accompagner dañoo ñëw lañ leen yore leen ci bor ñu fay leen ko waaye yemuñu ca mbokk yi daa am lu am solo loo xamante ne nguur gi daf ko def mbokk yi est-ce xam ngeen ne dañ leen a wàññil la nguur gi daan jaayee lii nga xamante ne moom mooy engrais nguur gi lam leen ko daan jaayee ngir ñoom ñu mën a bay bay mucc ayib prix ba dañ ko wàññi bu baax a baax a baax a te dama leen koy liiral ngeen dégg dafa am engrais boo xamante ne ñoom baykat yi kuy doomu baykat wala ku mës a bay wala koo xamante ne doon nga dugg ci bay di ko xam man xam naa ko parce que doon doon naa duggantu ci bay dafa am bu ñu tuddee six vingt dix boobu mi ngi doon jar lii nga xamante ne moom mooy ñaari junni di dix mille ñu wàññi ci lii nga xamante ne moom mooy trois mille cinq cent muy jar léegi six mille cinq cent waa ku doon jënd saak dix mille ñu wàññi la ci 3500 boo di doon jënd tey jii nii lii nga xamante ne moom mooy 10 sac muy nga daan joxe 100000 léegi am nga 35000 boo xamante ne da nga def sa poche am feneen foo ko mën a dugal 65000 rek ngay jëndee. nguur gi biñ ñëwee dañ leen ko wàññil te loolu ci Macky Sall 10 000 lañ ko doon jëndee ci nguuru Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy jëndee léegi 6 500 muy saako engrais boobu. am na beneen bu ñuy wax 15 15 15 boobu cinq 500 lañ ko doon jëndee ñoom baykat yi laaj leen. moom leen ko état doon jaayee ngir ñu waajal li nga xamante ne mooy seen campagne wàññil nañ leen ko dindi nañ leen ci mille cent itam léegi ñoom ñu ngi koy jëndee li nga xamante ne moom dindi nañ leen ci 3000 pardon léegi ñu ngi koy jëndee 9500 muy wàññi boo xamante ne am na ci saako bi laa wax nag saako bi saako bi wàññil nañ leen ko bi nga xamante ne mi ngi doon tuddoon 15 10 10 sac bi mi ngi doon jar 12500 wàññil nañ leen ci li nga xamante ne moom mooy sept. wàññi nañ leen ci 5000 ba ñoom léegi 7500 lañ koy jënde ñu wàññi leen ci 5000 ba léegi 7500 lañ koy jëndee mooy saagu engrais ñoom baykat yi itam wàññi laatal nañ leen ko muy beneen mbir ne dafa xamante ne mu ngi tudd 9 23 30 ay façon yi engrais la yoo xamante ne bu ci nekk rek a jóg dinañ ko leeral après am na doon jar léegi mi ngi jar li nga xam ne mooy 12500 am na boo xamante ne mi ngi doon jar 10 10 20 12500 wàññi nañ leen ci 2500 léegi 10 000 lay jar am na boo xamante ne mi ngi doon jar 16425 léegi 12500 lay jar wàññi lañ leen ci 3925 ba tey saak bi am na moo xamante ne mi ngi doon jar 18750 muy urée wàññi lañ leen 8750 bi léegi 10 000 képp lay jar mbokk yi gis ngeen wàññi yii nga xamante ne nguur gi wàññi na ko ci ay milliards la bàyyi mu dem. ngir yërëm askan wi waaye ngir yërëm baykat yi déglu leen li ma leen wax dañoo ñëw fekk baykat yi ñu yoral leen bor de deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois ñu fay leen seen bor newuñ leen fay nañ leen seen bor léegi am ngeen xaalis de déedéet dañ leen cee tegal na leen léegi liñ leen doon jaayee saagu engrais yi dañ leen koy wàññil saag bi doon jar dix mille six mille cinq cent beneen douze mille cinq cent neuf mille cinq cent bu ci ne au minimum yii ñu wàññi ci trois yi 8750 sac bu ci nañu wañ ko ci jappale ko baykat yi ngir ñom ñu mëna wajal seen bay bu baaxa baaxa baax baax li nguur gi nguuru basiru jomay jaxar fay def nako fi bi ñëwé ak légui waye mbokk yamuñ ci est ce xam ngeen ne nguur gi dafa dugal 35000 tonnes de phosphate le duggal jox ko baykat yi ne len li nak jaayuma len ko ma len ko dimbalee accompagner len ko ngir sen bay meuna bax muy phosphate bo xamantene ak engrais la ngir dimbali len loli itam ay decision yo la yo xamantene nguru basiru jomay jaxar fay jël nako gannaaw ba nga xamantene ki di president Ousmane Sonko mo nek premier ministre ba di ko ci accompagner kon baykat yi fay nañ leen sen xaliss ban leen ñoro yoreloon wàññil nañ leen prix yi nga xamantene mom lañ doon jëndé engrais yi ñoom ñep wàññil nañ leen ko waye phosphate sax jaayatuñ leen ko nañ leen koy may te loolu nak mbokk yi ba Sénégal de Sénégal te c'est la première fois que nguur ñew di def waajal li nga xamante ne moom mooy campagne agricole jël phosphate bi may ko baykat yi ne leen dañ leen koy dimbalee xam nañ ne sonn ngeen duñ leen ko jaay ren te moo ne day bu leen neexoon ñu ne dañ leen koy jaay parce que dañ leen wax ne fay nañ leen seeni bor bor yi démb leen leen ko fay bu ma la ko fayee démb nag tay ma war laa jaayaat lu lay waajal sa campagne man su ma neexoon ma ne la kaay fay ma wala boog ma ne la mënu ma la ko wàññil parce que fay naa la say bor waaye ñun defuñu loolu dañoo yërëm askan wi. wàññil leen li nga xamante ne mooy engrais bi may leen phosphate yii décision la yoo xamante ne nguurug Bassirou Diomaye Diakhar fay jël na ko fi yow baykat bi may seetaan bu la nguur gi yoreloon xaalis xamal ne tey jii nii mi ngi la koy fay yow baykat bi may yow doomu baykat bi boo jàppee ne sa way waajur baykat la nguur gi yoreloon na ko xaalis jàppal ne tey jii mi ngi ko koy fay 2021 2022 2023 ñetti at ñoom baykat yi ñuy daw ci seen bor bëgguñu fay leen ko nguurug Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am Ousmane Sonko ñi ngi leen koy fay waaye yamuñu ca de ñu doon jënd engrais exemple rek mi ngi mel tey jii nii bu ñu ne woon saaku ceeb bi kat mi ngi jar douze mille cinq cent léegi ñu ngi koy jëndee yenn yi sept mille cinq cent yenn yi ñu ngi koy jëndee huit mille yenn ñu ngi koy jëndee sept mille yenn ñu ngi koy jëndee neuf mille parce que si catégorie engrais bi la donc catégorie ceeb bi pour ngeen dégg ma rek. loolu yëpp defal nañ leen ko wàññil leen ko waaye am ci boo xam ne sax dañ leen bii moom sax nag nag far dañ leen ko dul jaay dañ leen koy may muy trente cinq mille tonnes de boo xamante ne yëkkati nañ ko jox ko ñoom baykat yi décision yooyu am na fi waaye mbokk yi fi may daanelee mooy coow li nga xam ne am na fi jamono yi parce que am na ci yeneen décision yoo xam ne dañ ñëwaat dafa am lu ma bëgg leen leeralal après parce que ñu bari ñu ngi wax naan nañu wax nañu communiquer nañ leen xamal li xew ñoo ngi organiser wu te daam ay kilifa man lii may def tey du position officielle bu ma am ci dara waaye position bu ma am nag ci projet bi ak biir Pastef moom daf may may saa su ne ma jël sama responsabilité su ma gisee ne am na lu ma jàpp ne warees na koo leeral wala sooxe na ma jël sama responsabilité leeral ko mooy li may def tey parce que projet bi man ak yéen ak ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñoo war a leeral askan wi ba ñëpp yëg xew li moy suñu duñ dañ mukk ci diko def ñuy jox ñuy noy duñ mukk ci diko def ak position buñ mën ci parce que lool que relation bi mësa am ñun ak askan mi parce que je gëm né réew mi dañ ko wara défar légui mu am lu fi xew li fi xew moy dañu am kilifa go xamantene dafa am ci je ñun bokki président Pasteur, les patriotes Ousmane Sonko mom dafa am ci bu amee ku ñàkk fayda wala boog bu amee ñoo xamante ne gëmatuñu seen bopp bu amee ñoo xamante ne jàpp nañ ne ñun suñu alal waruñu koo topp waruñoo kaas li ñu moom ñoom seen problème la waaye ñun li ñu gëm mooy li ñu moomal suñu bopp dañu koy xeex taxaw ci mu am lu fi xew jeudi bi li passé ngi ma fekk dakaar man maa nekkoon sax maître de cérémonie bi parce que dañoo amoon gan guñ jóge jële woon fële nga xamante ne moom mooy France di Emmanuel Macron daal di ñëw Dakar ñu war a dem université waxtaane fa lan mooy ëllëgug Europe Afrique yan relation yi ñu war a am rawatina France ak Afrique wala boog France ak Sénégal yan relation maanaam relation mooy demalanteeg dikkalante bi ci wàllum koom ci wàllum sécurité yooyu yan relation la war a doon naka la war a demee nam daan demee daf ko war a continuer wala dafa war a changer ci wàllu woowu président Ousmane bi muy def li nga bu mané président Ousmane nak mbokk yi président Ousmane Sonko bu Pastef lay wax bi muy wax discours ci ñaari phase la benn phase bi moy dafa wax li déggo ak Eman ki nga xamné moy Jean-Luc Mélenchon li déggo déggoo ak moom daan ko phase point yi dañ cee déggo waaye amna point yo xamante ne déggoowuñ ci donc il y a li nga xamante point yi nga xamante ce sont les points ci ay convergence de vue am point yo point la yo xamante ne point point des points ci convergence de vues. effectivement c'est Mélenchon pas Macron je précise jërë ngeen def motax buñu bu ni waxtanal wala wax expliquer li xew itam day jaaru yéen buñu é défé ee ko bindé dañ koy gis kon merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon lay wax dafa Université de Dakar am débat ak ki nga xamante mom moy le président de PASTEF le président Ousmane Sonko ci ëllëgug Afrique ak Europe wala ëllëgoog Sénégal ak France lam daan wax ci opposition tey nag ñun ñu nekk ci nguur gi war a doxal lu ñuy tuddee le projet mu ne léegi Mélenchon xaaral ma wax la ñun man ak yow li nga xamante ne am nañ ci déggoo mu ne ko France dafa am responsabilité ci li nga xamante ne xew na fi woon suñu réew mi te Macky sàll ba nga xamante ne mi ngi dal suñu kaw ñii ñu leen gaañ ñii sax dee ci Macron daf ko invité féliciter ko ne ko da nga koo def parce que kat da nga don sauver sam rew alors ko du deug ñii len dong leen beggone moy defar seenum rew lolu responsabilité France la. lolu président Ousmane Sonko wax nako ki nga xamantene moy Mélenchon te nee ko japp naa ne maa ngi déggoo nañ ci. nee ko itam suñu koom relation yi ñu am demalanteeg dikkalante bi relation respect lay don relation égal à égal nim ñu gañati yéen ngeen gañe ci waaye dootu leen jël la ci ëpp ngeen yóbbu ko ñun ngeen bàyyi ñoog la ca gën a tuuti kooku dootul am day deñ parce que ñun réew lañ moo xamante ne léegi dañoo yeew suñu doom dañoo jàngate daa am fu ñu bëgg a dem kon dañuy taxaw xeex ko ngir ñun suñu relation ak Europe suñu relation ak France mu nekk relation yoo xamante ne relation yu égal à égal la ay moroom lañu doon réew ngeen réew lañu bu ñu signé partenariat partenariat loo xamante ne kat yéen bu ngeen ci gañee cinquante ñun dañ ciy am cinquante égal à kii bu jëlee fukk kii jël fukk ki bu jëlee juróom fukk ki jël juróom fukk nee na ko loolu mooy am waaye la fi daan am day jeex loolu président Ousmane ko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Mélenchon nee na ko bu ngeen gisee Afrique ngeen naan sentiment anti français bi ko waral mooy seeni comportement wu seeni gouvernants yi la jukko yi ñuy amee suñuy sonal suñu askan ñu sonn ñu exploiter li nga xamante mooy suñuy ressources ba pare ñoom kat ñu bëgg ñoo forcer seen gëm-gëm ak seen xalaatin woo xamante ne kat bokkuñ ci gis-gis loolu bu ngeen ñu ko bëggee def nag mooy jur li ngeen a tuddee tey sentiment anti français parce que africains yi dañoo commencé yeewu xam li ñu bëgg xam fa ñu jëm jàng moo tax yéen yi boo leen ko bëggee def ñoom ñu bañal leen ko wan leen ginnaaw loolu dong mooy li fi am te loolu dafa war a deñ loolu ki nga xam ne mooy président Ousmane ko wax na ko ki nga xam ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon nee na ko waaye situation de pauvreté sous-développement yi nga xamantene mom la Afrique nekkee France kessé du ci responsable ak Europe de ñi nga xam ñoy suñu chef d'État suñu élite gouvernante yi nga xamantene ay africains la nekk biir Afrique ñoo am nañ ci ngandum responsabilité parce que suñu détournement ñom la xaalis bi ñuy Loubal, ñom la contrat yu bon yi ñoom la te ñom itam am nañ gandim responsabilité ci sous développement wu Afrique kon tey bu ñuy wax situation bi nga xamante ne Afrique nekkee na ko bu nee kat ba joxoñ baaraamatuma ñi nga xamante ne ñoom ñooy France dinañ jox baaraamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy gouvernement ñi nga xam ne ñoo ñu doon yilif waaye mën na ko ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu Afrique bu ma génnee Sénégal dugg ci pays du Sahel maanaam ñi nga xam ne ñooy Burkina Mali Niger mu ne ñooñu am na yu fa jotoon xew ay coup d'état ñu condamné

duma seetaan waa Mali duma seetaan waa Guinée duma seetaan waa Burkina parce que suñuy frère africain lañu dinañ fexe ba déema waxtaan ak ñoom ñu déggoo defaraat CEDEAO ba lii nga xam ne moom mooy ay chef d'état képp di ànd di def lu leen neex te seeni askan duñ ci gis seen bopp loolu dafa war a jeex kon ay embargo yi nga xamante ne defoon nañ ko fi yenn dëkk yi loolu ñun dootuñu ko def dinañ jéem a dem foofu waxtaan ak ñoom ba ñu am dégg-dégg suñu biir ba ñu nekk benn ak CEDEAO bu dëgër këcc ba Afrique mën a nekk li nga xamante ne moom mooy Afrique bu dëgër këcc loolu ki nga xam ne moom mooy président su Sonko xamal na ko Jean-Luc Mélenchon waaye waxal na ko ne ko Qu'un d'autre nous impose ni le rien ni personne dans le cadre bilatéral que multilatéral ne nous imposera la imposera la politique à avoir C'est une politique c'est une façon faire. gis-gis naka lañ yoree suñu koom naka lañ yore suñu askan fan la ñuy dugal suñu xaalis nekkatul benn dëkk ci àddina boo xamante ne moo ñu koy imposer ñun ñoo koy xalaatal suñu bopp doxal ko suñu bopp xool suñu askan lu mu bëgg ñu dugal fa xaalis ba ànd caag ñoom ba ñu développé wu ndax yéen foofu ngeen ba développé wu ak seen dëkk kon dootu leen suivre ci dara amul fenn fu ngeen mën ñu jaar ba leen ko lii président Ousmane Sonko wax na ko Jean-Luc Mélenchon wax na ko itam ne ko lii ne moom mooy base militaire française yi nga xamante ne ñi ngi fii euh, Sénégal wala Afrique Dakar par exemple dim espace lañ fa am depuis 1960 bataille, tey ñu toog fa ne wàgg rek ne duñu jóg mu leen waaye yéen France xanaa yéen da ngeen a fàtte ne États-Unis ba mu leen bëggee leen defal ay missile balistique 1956 ak 1966 da ngeen a bañ daan na ko ñun ñoo contrôle total bi boo ci bëggee am contrôle ñu lànk ba contrat ba kenn mujj koo signé États-Unis Non, la jëlee ay missile am dem yéen da ngeen koo bañoon ñun nag 1960 ba tey ngeen toog fii loolu dafa war a jeex ñun tamit ñu moom suñu bopp yor suñu bopp dokhala doxalal suñu bopp loolu bokk na ci décision yi nga xamantene ki di président Ousmane Sonko kat xamal nako ki nga xamantene ne Jean-Luc Mélenchon président de Pastef Ousmane Sonko xamal nako Jean-Luc Mélenchon né na ko ñun dootun ci nangu base française yi dinañ ko remettre en cause dinañ ko xolaat waye nak amul dara lu mu yàq ci suñu accord de défense suñu ko waree corriger dinañ ko corriger waye base française sen togin fi après soixante ans d'indépendance loolu day remettre en cause li nga xamante ne moom mooy suñu souveraineté kon loolu dees koy xoolaat loolu kii di président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon waaye wax na ko ci ressources naturelles yi mu ne contrat yi ñu am jamono jii ci wàllum gaz boo demee Qatar li ko defar gaz la nga dem Arabie Saoudite li ko defar gaz la nga dem fële nga xamante ne moom mooy dëkk yu mag a mag yu ci bëri gaz ak pétrole defar ñun ñu am ko signé contrat yoo xamante ne contrat yi à l'état ni mu mel. buñ ko ni bàyyee xëy na fii au 15 ans dañ ca war a profité wala duñ ca profité moo tax ñoo ne dañ koy xoolaat dañ koy lijjantiwaat dañ ko xoolaat parce que yéen bu doon yéen ko am du ngeen ko signé nii kon signature yooyu baaxul te ñun dañoo bëgg suñu askan gis seen bopp ci lu ñu moom te parce que nag ressources yi ñun ñoo ko moom suñu suuf la nekk kon dees na ko xoolaat loolu ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon waaye président Ousmane Sonko ba mu ko waxee loolu yépp nag nu ko loolu yëpp jàpp naa ne déggoo nañ ci des na ko xoolaal ngir suñu askan mëntee gis seen bopp waaye nag am na ci côté boo xamante ne nag moom gëm naa ne man ak yow Jean-Luc Mélenchon bokkuñ ci dégg-dégg dama la koy a leeral parce que jàpp naa ne bis xëy na yow mën nga yor France wala boog ñu bokk ci sa mouvement France bis bu ñu yor France na la leer ne yii man ak yéen ànduñ ci gis-gis ñun ak Afrique ak yéen ànduñ ci gis-gis mooy yi nga xamante ne amuñ ci convergence de vue mu ne ko lu jëm ci wàllu LGBTQ loolu bu ngeen ko déggee mooy jëm ci wàllu li nga xamante ne moom mooy wàllum góor jigéen mu ne ko loolu moo naa a nekk prochain casus belli bi war a am entre Occident et Afrique mbokk yi casus belli mooy tas mooy li nar tas suñu diggante ba ñu tàqali ko ba faw ngeen aw nii ñun ñu aw nii li ko nar a jur mbirum góor jigéen la parce que da ngeen ñu ko da ngeen ñu ko bëgg imposer te duñu ko nangu parce que bokkuñu gis-gis bokkuñu façon muy dundin bokkuñu gëm-gëm bokkuñu culture ñu aada ak bokku ñu gëm-gëmu diiné non ngeen koy dundee yeen mu bokku ci yeen xeyna bokku Beaucoup ci suñ seen société ñun bokkul ci société dundé wuñ ko wuñ ko kon bu ngeen ñuko imposer tas lay indi suñu digënté rupture totale am ngeen aw nous ñu aw nii waaye lol ko lool mom na leer jarul sax ngeen ci sori nak Jean-Luc Mélenchon li man yow xamna ni man ak yow déggoo wuñ ci waaye nañ ko nangoo nonu gérer leen ko seen ni koy gérer ñun ko suñu nañ koy gérer ku ci nek ak na nga gérer sa problème yeen da ngeen wax ne seen dëkk bobu biir France nangou len fa ñaari soxna nit du am polygame fi dañ ko fi nangou man polygame la waye nak bu may France xeyna man du ma respecter seen droit parce que bu boba kat bu bu boba da ngeen ne yeen seen rew momu kat polygame dañ ko fay téré yeen non ngeen téré polygame ñun fi non lañ bañé li nga xamantene mom moy homosexualité mbirum góor jigen kon duñ ko nangou du ngeen ñu ko imposer lii ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon mais mbokk yi daa am leneen lu mu ci teg lu ëpp solo daf ko wax ni ko bëri na ci sax ah, bailleurs yi institution international yi dëkk yu mag yi bu ñu waree signé ak yow partenariat boo xamante ne dañ lay jox xaalis ngir nga defar seen réew dañ lay wax condition bi liy tax ñu nangu ba mën a signé ak partenariat boobu mooy nga nangu légaliser lii nga xamante ne moom mooy mbirum góor jigéen. Ousmane Sonko nee ko lolou ñun duñ ko nangute duñ ko signé jarul sax mu ci sori parce que ñun duñu nangul lolou dafa jeex ci réew mi lii mbokk yi président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamantene mom moy Jean-Luc Mélenchon nee ko ñun ak yeen bu ngeen ñu bëggee imposer homosexualité ñun ñu tass nee ko ñun ak yeen ni ngeen dundé yeen seen homosexualité seen problème la ñun dunduñ ko noonu ñun yeen ne ngeen nangulen goor am ñaari soxna ñun dañ koy dundu yeen noonu ngeen ko bañé ne du ngeen ko appliqué ñun noonu la ñu bañee góor jigéen ne duñ ko appliqué kon loolu na leer loolu président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon waaye nee na ko bu dee da ngeen yor seen xaalis bëgg ñëw koo jox ne kat pour ngeen nanguñu koo jox faw ñu signé li nga xamante ne mooy mbirum góor jigéen jël leen seen xaalis yóbbu ko ca xacc soxlawuñu ko parce que ñun gëmuñu ne yéen yooyu ngeen ñu ko yéen yooyu ngeen ñu bëgg imposé dañ koy doxal ndax dañoo am gëm-gëm am diine am culture am aada ak cosaan am histoire am façon doxalin bo xamante mom lañuy doxale té doxalee loolu dara du ko changé bu ngeen ñu ko bëgg imposer tas lañuy def way duñ ci and ak yeen ki di président Ousmane Sonko wax nako ci tubaab ki nga xamantene ne mooy Jean-Luc Mélenchon. né nako way yeen France sax limi def mo gën a ñi nga xamna ay jullit lañ dañ leen stigmatiser ne leen ni ngeen di solo baaxul parce que bokkul suñu mode de vie way yeen France bu dé yeen a jéem naan diw ni muy solo baaxul bokkul ak suñu mode de vie ah yéen France yéen am mode de vie xana ñun amuñu ko sen mode de vie bobu na yam France gis-gis bobu sen gis-gis la bokkul ak suñu gis-gis ñun tamit dañoo am mode de vie ak façon de faire li ki nga xamantene mom moy président Ousmane Sonko mbokk yi wax na Jean-Luc Mélenchon nee ko nak Sénégal te li ci français ni la ko ko waxee dama leen koy liiral ba pare wax ko ci wolof le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de la légalisation de l'homosexualité amna ben benn ku may envoyé léegi ne ma casus belli moo gën sax graw tass casus belli meun na indi sax guerre diggante deuk deuk moy mooy xuloo nañu xeex nañ dañuy dem guerre président Ousmane Sonko kon mbok yi limu wax sax nee na bi ngeen ñu bëggee imposer yeen li nga xam ne mooy homosexualité mën nañu jural sax guerre suñu diggante ak waaye duñ ko nangu. te ki ma yokk ma envoyé lii mbokk yi déggantuwul tubaab de moom la ma firi léegi bind ma ko message pour ma xool ko nee na ma Cassius Belli gën na garaaw tas xam nga tas kii day aw nii ki aw nii mais sax dañ fay nar a def guerre bu ngeen moytuwul te président Ousmane Sonko nee na buñ moytuwul guerre bi nar a am coow li nar a am diggante ñun ak Europe ñun ak le monde occidental mooy ñu bëgg ñoo forcer li nga xamante ne moom mooy mbirum góor jigéen te duñ leen ko nangul beneen bi mu ne leen ñun Sénégal ak yeneen dëkk africain yi duñu mënuñoo nangu te duñu nangu lépp loo xamante tey day jublu ngir ñu légaliser li nga xamante ne moom mooy homosexualité maanaam mbirum góor jigéen lii président Ousmane Sonko wax na ko kii nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon mu teg ci ne ko ñun mbirum góor jigéen daa am nuñ ko mën di gérer nuñ ko xamee woon te lii may bëgg wax nag noo mënti sant mbokk yi foo mënti bokk organisation boo mënti yor.

li fi président Ousmane ko wax yëpp dal ko ci kaw ñi ñi nga kii di Jean-Luc Mélenchon nga xam ne ganam la nu ko déggoo wuñ ci te duñ ko nangu ñoom seenuk naa ak bañ dëgg tax na ñu dem uti ji ne leen ngir sosalee ko ko naan dañoo am déception génn di wax ku ko ci waxoo dëgg ay kàcc ak koo mënti doon na noo mënti sant ak foo mënti bokk ak foo mënti dëkk parce que dëgg bu jotee nees ko wax trop so trop li bëgguñu am benn arrogance jàmm la ñu woote bi ñëwee ba tey dañoo ànd ak dal daan ne kat defar réew mi ñun ñëpp ñu ànd def réew mi ndax ñun ñëpp ko bokk xëy na ñàkk déggoo mën naa bi nekk ci opposition bi waaye te yàlla ñun la jox nguur yi kon jarul jaay doole kenn vengeance amul xuloo amul xeex amul nañu ànd defar réew mi réew mi nekk benn waaye ñi ñu ko séqal ñooy baadoola na ma yàlla baal ndax baadoola weesawul kilifa toog wax jii mu wax nga ne dégg nga tubaab déglu lépp jël ci benn parti boo xamante ne ça n'a rien à voir la mu wax nga ci wax say kàcc di ko yóbbu foo xamante ne waxu ko fa kenn du la ko wax loolu mooy li nga xamante ne moo yàq réew mi na ma nañ ma baal ci kàddu yi bi mu nee mbirum góor jigéen dafa am lu ñu ko toléré ñun suñu réew yi may wax nag ñun ñëpp ko xam kuñ daan gis ngay taasu wala ngay dem ci sabar yi wala ngay toog ci jigéen yi wala sa kàddu wala sa waxin xaw a jigéene ñun kooku lañ daan tuddee góor jigéen dafa amoon suñu société amuñu woon benn problème ak genre waaye dañ daan xoolu góor jigéen ba bële kese mu dem yoonam tubaab bi nag li mu dégg ci góor jigéen moom muy sëy seen biir ñun xamuñu ko du suñu culture dégguñu ko xamuñu ko ma suñu ko dund loolu xamuñu ko du suñu mbir koo ko wax danaan subhanallah waaye xamoon nañu par contre ji góor boo xamante day nekk ci sabar yi nekk ci jigéen ñi seen mbaxalu góor jigéen xawma yooyu sax dañ ko daan wax toog seen biir loolu amuloon benn problème te suñu société parce que loolu dong lañ ca xamoon xamuñ ci woon ay see góor ak góor déedéet góor bu doon nekk ci jigéen ñi kàddoom xaw a jigéene ay doxalinam ak waxinam xaw a jigéene ñun kooku lañ tuddee woon góor jigéen président Ousmane Sonko mu ne genre boobu la ñu xam te toléré woon nañ ko suñu société ku wax leneen lu dul lii waxoo dëgg mbokk yi pour tënk wax bi lii la président Ousmane Sonko wax lii mooy li mu wax Jean-Luc Mélenchon avec fermeté waaye mbokk yi li ma fi wax yépp lan moo fi nekkul intérêt Sénégal lan moo fi nekkul intérêt Afrique lan moo fi nekkul fullaak fayda goo xamante ne dañoo bëgg réew mi jëm ca kanam lan moo fi nekkul fullaak fayda goo xamante ni ñoo bëgg ñu ñëpp ñu moom suñu bopp lii nag tey yéen ñii dañu seetaan partagé leen ko yaay ak mag ñëpp déggoo parce que suñu rajo yeeg télévision yi yu bëri yi ma dégg yii ñii luy taal ci réew mi buñ moytul suba ñoom ñoo koy taal parce que ñi defaroon réew mi kilifa gu toll nii mu wax premier ministre nekk président parti politique wax wax ji mu wax ci rew mi bëgg ne nañ limo rew mi li moy suñu culture li moy suñu gëm-gëm fi lañu jëm yi duñu ko signé yi duñu ko nangu mën nañu jural li nga bayyi lool yépp dagg ca la ca gëna tuuti di commenter di ci wax yow ku la gëna nekk nafiq ak luy tal am rew na la japp parce que yow moomu yi koku nga bok dañ waxante deug rew mi li fi am dafa ëpp boko waxé nak ñu am neneen nuñ ko gisé am neneen nuñ ko déggé ki nga xamantene ba nga ñëwé jël nga suuf si ko askan bi ña ko ndox yaangi fexé ñu am ndox baykat yi dox nga len sen ak delo len sen bor wañi len li nga xamne ne engrais yi may len phosphate na len na len accompagner li nga xamantene mo jëm ci walu rapport yi suñu alal yi ñu genné ko ne fang ne na yon def liggéeyam man mi suma réew mi tay ji ni limay Ousmane Sonko yon tek ma ci yon lool moy dëgg lool moy état de droit ñu am fi gan gan gi ñew ñu ne kat France waru fe def li Europe waru fe def li duñu ko nangoo ño wara mom suñu bop suñu ressource ko accord de défense yi dañ ko wara xolaat France base militaire yi def fi war a jóg doo jaay doole gi ngeen daan def dafay jeex mbirum góor jigéen seen façon la suñu façon du ñu ko nangu loolu yëpp ñu wax leen ko expliquer leen ko leeralal leen ko ba lépp leer am ñun ñoo xamante ne ay naafeq lañu hypocrite duñu waxkatu dëgg am na ñoo xam ne sax dégg naa ñu bokk ci yenn famille sax di woote famille diine waxuñ duñu ak ay waxkatu dëgg ay naafeq lañu waaye mbokk yi bu ngeen seetloo ñu génn wax ñi ci ëpp ñu ñoo xam ne dañ ñoo bañoon ëllëg tey soog a ñëw la ñoo xam ne mosuñ ñoo bëgg biñ nekk ci opposition bi nag ñooñu tey dañuy xool fu ñu langaamu fu ñu langaamu ngir dal suñu kaw waaye ñun li ñu yitteel mooy askan bi li ñu yitteel mooy sénégalais bi sonn mën a changé li ñu yitteel mooy ndaw ñi am liggéey li ñu yitteel mooy réew mi mën a jëm ca kanam li ñu yitteel mooy réew mi changer ci xar kanam wu ne heure liggéey ñu liggéey heure wàcc ñu wàcc ku am compétence jox ko sa compétence képp koo xamante ne kat yaa ngi liggéey nga am loo def sa poos koo xamante ne bëgg nga am kër nga am koo xam ne bëgg nga dund dund gu teey nga am dund gu teey lii moo yitteel ñun bi ñu ñëwee ci réew mi te loolu la ñuy dox xuloo wuñu woote wuñu dara nañ defar réew mi la ñu wax waaye am ñoo xamante ne damaa jàpp ne dañoo bañ réew mi bañ réew mu weesuwul président Ousmane Sonko génn fi tenu discours bu am importance yi dugg ci sujet yu bëree nii yoo xamante ne képp kuy africain boo ko dégloo tu es fier xam ne lii la Afrique laaj yow ngay kàcc kat di naafeq di ko orienté ci wàll woo xamante ne waroo ko ci orienté am na ko xam ne dinaa turam muy Mame Mactar Gueye bu Jamra lim naan il est déçu parce que li mu wax du dëgg li mu bëgg a orienté président Ousmane Sonko loolu la wax moom maam Mactar Gueye waxul dëgg dëgg nag bu jotee des koy wax parce que daam loo xamante ne gor moomu ko te président Ousmane Sonko ko la am na lu mu bëri lu mu fi dund ci réew mi ñoo ko waroon kaas-kaas suñu ko ñu muñ ko te yàlla tax ba yàlla jox ñu nguur ñu ne dañuy defar réew mi buñ bëggee defar réew mi nag bu ñu juumee ci suñu attitude boo xamante ne dañoo ne kat lii décision bi waruñu ko jël parce que baykat bi gisu ci boppam nappkat bi gisu ci boppam boobu ñu waxtaane ko waaye yow ñu jël décision yoo xamante ne que lépp ci askan wi la waxtaanewu leen ko génnu leen applaudir xool leen li nga xam ne moom mooy accord de pêche yi dañ ko remettre en cause képp man ne man ba ma dalee dund Sénégal ba tey maa ngi soo ko gis ay accord de pêche yu ñu génnee daan ne ñii ñoo am droit napp ci suñuy suñuy suñuy territoire loolu yëpp am fi ñu war koo rafetal magnifier ko Anda ak gouvernement bi liggey kuy opposé wu nga opposé wu sax ci li nga xam moy décision yi ñuy jël wax ñu manquement yi parce que nit matul ñu jema a perfectionné wu défar ko waye ngay ñëw di sosal gor go xamantena lamu wax ak la nga wax dara du ci dëgg mbokk yi ngeen bal ñu ci cadeau yi nga xamante xeyna rëcc nañ li ñu yéene rek moy défar réew mi ba réew mi baax ñu ñëpp ñu and défar ba askanu Sénégal mën ti bokk ak mën ti doon nga yegna kat yitte bi ñu ci suñu cadre de communication bañ nekkee ci opposition yitté bobu lañ ci defaat ba yeen ñëpp ngeen mëna am la bonne information wax deug neex yalla leneen li ci dess rek moy man personnellement ba ak luñ ci mën ci fekk dinañ jël suñu responsabilité di communiquer ak yeen dinañ dajale ay conseil des ministres wax leen wax leen décision yi nga xamantene mom lañ ci jël dinañ dajé ak kilifa yi nga xamantene jël nañ yenn décision yi ci yenn ministères yi dinañ laaj nañ yombalal ñu jox ñu information ak arrêté ak décret yi ñu waxtaan ak yéen jox leen ko faram-fàcceel leen ci wolof ba bu ci nekk décision bu ci nekk ka mu ñor ka nga xamante ne moom la ñor ci secteur ba mu nekk baykat ba nappkat ba menuisier ba artiste ba journaliste ba ku ci nekk fa nga bokk ak fa nga mënti ne nga mën cee gis te bopp xam ne décision bii kat xëy na yow la concerne ñu faram-fàcceel la ko ci wolof ba nga xamkat kat ne nguurug Sénégal. ka nekk ca booba di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko jël nañ yii décision et que yow concerné la parce que ci secteur bii nga bokk et kat lii la wax lii moo ciy saan njariñ loolu dinañ ci taxaw yes na ci liggéey di jéggalu ci li nga xamante ne manqué woon na ci wàllu communication en tout cas nous de notre part de notre part parce que dañoo waxoon ne nañu observé tuuti waaye incha allahu rabbi danañ continuer ak yéen ànd ak yéen ci wàllum communication

njëriñal Sénégal la ngir Sénégal mën a jëm ca kanam ñu ñëpp ñu bokk ko opposition comme pouvoir ku ci nekk foo mënti bokk nga gis ci sa bopp yëg na kat Sénégal ñun ñëpp a ko bokk et que dafa war a jëm kanam jërë ngeen jëf.